Fallou Dieye laa tudd nekkoon naa fi président directeur général de la Sonacos et de la Sonagraine ba 2000 donc nekkoon naa président directeur général de la Sonacos et de la Sonagraine depuis 2000 jusqu'en 2000 ma jóge fa nekk conseiller spécial de monsieur le premier ministre ci en lu jëm ci agriculture mbay. Babacar mii sama cousin la ñoo bokk. ma damel ma Dieye mais lu ko gën a jege encore jarul may dem ci tur yi ba pare mu nekk sama xarit euh, Sénégal ñàkk na nit ku mag nit ku ko liggéeyal liggéey boo xam ni ñu bari teg nañ ci seen bët ci résultat bi waaye xamuñu fu mu aw ba def ko ndax dewul nekkul woon kuy wax li mu doon def daf koy def ci sutura ak teraanga te du ko wax lu ngeen seq ci lu baax mu defal la ko boo ko waxul yow ak moom ak yàlla rek koy xam. état bi ni mën a def ak senegal yëpp war cee jàpp fi ne nii fan yii yëpp yaa ngi dégg ñu naan dañu war a xoolaat suñu suñu histoire seetaat suñu monument yi ñi ngi koy tudde ñi nga xam ni liggéeyal nañu askan wi Babacar ci jiitu ci ñooñu la bokk. war nañu seet lu rëy rëy ñu tudde ko ko avenue wala benn rue. benn mbedd walla lu mel ne maison de la presse nga xam ni la presse symbolise plus moom moo gën a màndargaam liggéey bi mu liggéey waaye Babacar dafa liggéey tam pour démocratie Babacar dafa liggéey pour diine Babacar dafa liggéey pour suñu histoire liggéey na liggéey bu mag bu ma ko doon wax li mu wax ku ko doon tudd tey baba jant bi so jeex bis bu nekk ci loolu lay xëy ci lay gont ci lay bi ci lay fanaan kon nag ñu ngi koy jaale senegal yëpp yàlla mi nga xam ne yërmandeem amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yàlla na xare Babacar Touré ajjana yi gën a kawe ci ajjana yi muy si te defal ko fa place boo xam ne daf ko koy tànnal boole ko ci ñiy ràmm nit ñi ëllëg jërëjëf. man El Hadj Boucounta Ndiaye ci xar Babacar yàgg lool fi ma taxaw tey. fi ma daloon nii mooy sama sama appartement foofu mooy foofu foofu soo ma njëkk ci kër gi foofu dégg nga laay nekk kër gu mos a nekk muy kees muy ndakaaru sama néeg nga fa fii mu bi tamit dégg la ko fii ma ngi sàll fekk si ma ngi ànd ak moom képp ak eldkaam mu woo ma dégg ma ñëwal bu dama am am gan kere fii nu yàlla ci kër gi Babacar daal dama koy dama ko ñaanal di ko jaale senegal gi yëpp nag di ko jaale waa di ko jaale ay soxnaam di ko jaale doo ay doomam di ko jaale ay xaritam di ko jaale adduna bi di ko jaale Sénégal yàlla ko yàlla borom suuf ci kawam ca Touba gi mu dëkk yàlla na ko yàlla suuf suuf seen ci kawam yokk leeram maa ngi ko tànn nii daw si